نويت بمدحي من أتاني نواله وإني بما الاقتير قد عن عياله نساك تمقن العز قد عن مثاله وواجهني دنيا وأخرى جماله نبذت الفرا لله جل جلاله بمدح الذي أمدحه رفع الله لي زمن علي من الباقي سلامه حيث عنان يقيني يقيني شك في سر والعلن ولي قاد ربي بالبسر والأمان يميني عليها دين قد يريسنا شفيع كفاني دون در ذوي البقي فرمت بأني كيس بانتباهه وأني ريان بأصفى مياهه طوالي إلهي بعد سيري بجاحه ولي بان خير السعي بعد استباحه طويت طريق القوم وقت امتداحه ولي قد خدى الحاجات بالروض والبسط علي جميل للبهيج المجمل لوجه إلهي ذي البرايا المجمل عفوت لوجه الله مع صفك الكليم وقلت لإرداء المخفى المؤملي على المصطفى بقى سلامي مكملين مع الآل والأصحاب من نفعهم نفعي إلهي إلى المختار مختار مسرفا وصل بتسليم عليه وشرفا إلى المنتقى أوس سرورا وخدما ومني تقبل خدمتي ولتعزما أقول إلهي صل عني وسلما على المنتقى بالحسب من حبهم خبئي له خن نوالا فائقا في نواله وسده جمالا رائقا في جماله لهقت بي كوني سرورا لآله وأصحابي بشرا له مع رجاله ki borom te rafet nañ ci njort ndax am na jëmm yoo xam ne wa rufqatun wa hiya ixwaanun himamun maa al wafaa'i bi sidqin fil uquwaati ñoo ngi yaakaar ne jëmm jii toog ci ñooñu la bokk ulaa'ika al xawm laa yasqaa jaliisuhumu is yaksiboona al muridiina saadaati moom moom day jataayam mën nañu yaakaar ne ci jataay yooyee la bokk ndax bañ ko xamee ba léegi amul jot ci lu dul lu baax amul jot ci lu dul sëñ Tuubaa ak xasida yi sëñ Tuubaa ak ñooñ sëñ Tuubaa kon ku takkoog moom ba nga jaral ko jóg mu ñëw toog nii ci baas bi mu tàng lool mu toog bis boobu manes naa rafet njot ci ne ku ca teewu mbaa nga def ci mën ngaa dajeeg lu faj sa aajo saahiran wa baatinan yàlla na ko yàgg woote ñu yàgg laa wuy si sëriñ bi ñoo ngi feddali bu baax kóllëre gi di feddali bu baax cofeel gi di ko seedeel sëñ Ibrahima mii di ko xamal ñëpp ci rajo yi ñëpp dégg ko ak enregistrement yi fu ñu mën a dem rek nañ xam ne sëñ Modou mii suñu wëllëree suñu wétte la ku nu sopp la moom bu nu jàpp bu demoon ba yàgg mu bàyyi ñu it day xaw a metti waaye ñun duñ ko bàyyi wax dañoo gis ci moom loo xam ne jaral na ñu jàpp ko ñu koy na rek mu nekk suñ kanam ñu yàgg ànd ak moom ci barke borom Tuubaa ñu ngi jéggal bu baax salaatu wasalaam ala xayri rasul di nuyu sunu kilifa gu baax gi nga xam ne moo toog nii muy sëriñ Mouhamadou Lo ñëw fi nii nag ci ab soppeem ak xaritam ak wëllëreem ak ab taalibeem sax muy sëriñ Ibrahima Mbaye bis bii nag kin koy defal suba yaakaar naa ne sëñ Ibrahima dafa xam tolluwaay bi nu am ci moom ak cofeel gi nu am ci moom moo tax bis bi mu bokk ci mu boole nu ci ñiy dalal gan yi ndax sëriñ Sàmbay yaakaar naa ne doom ji ma ko tudde ren ji lay am ñaar fukki at ak ñaar kon lu ko nit di defal ndax aw yiw loola boo ma ca booleeg boo ma ci boolewut ci laa bokk loola nag moo tax bis bi tey mu war a doon suba insha allahu rabbi sëriñ Mouhamadou Lo mii nga xam ne yàlla da ko booleeg sëñ moodu mii Cheikh Ibrahima mbay mii ba waxuma la acier ni muy jàppante waaye ni ñuy suudee ni min sama taalik di suudee ba boo ko bëggoon a dindi noonu la yàlla suudee sëñ moodu mii ak Cheikh Ibrahima ñu déggante nu ko raw sax ndax suude gi mooy suude xol la ay xol moom lu nu soree soree du tee ñuy jàppante ndax danoo bokk lu nu bëgg kon sëriñ bi seereel na ko boppam ci jëfam ci ay tànkam yi mu dox ñëw fi ak aw meloom ak nemmeeku seex Ibrahima dafa mel ni lim koy liggéeyloo ci jaam yi ak di ko liggéeyloo ci taalibe yi Cheikh Ibrahima mii dafa bon benn bànqaas ci loolu ngir ñu ànd ko bu yàggul rekk ci biir koor gi mook seex Ibrahima bu takkusaan jote ba nuy dog kii day jàng xurxaan ya kii jàng fulku bi ñoom ñaar ñoo koy àndandoo ba ñuy séentu weer wi loola nag lim ko ci bëggal ak lam ca bëggal ñëpp mooy ngërëmal sëñ Touba. fii mu nekk nag ak si fi jomam ak ab yaram moo ko fi indi ñi dàq jàng xasida ci dëkk bi wala ci réew mi ci la bokk waaye du ko doxe du ko waxe du ko solo du ko waaje su ma waxee loolu ñu bari xam na li ma bëgg a wax kon Cheikh Ibrahima ñu ngi lay ñaanal bis bi li nga ci yéene. xam naa ni nga jàppe sëñ Ibrahima moom. umbatut kenn xanaa ñi ngi wax suudee ma ne xanaa yasuddu baaduhu baadaa la laa dis wax xanaa nun ko ko jàppe te li yonent bi wax moo gën a wér keneen wax waaye man mii di magam ak sëñ Ibrahima ak sëñ Xaadim mee daaw ñëwoon nañ ba sa kër sax ci ka di la jolal ci cant gi lépp loo ko jàppe rek ndax daara baayam fi laa jàng alxuraan fi laa defee lépp suñ nday yi toppante daram ump ma tam def ma kilifa it daanaka lu mu yendoo naa ko xam lu mu fanaan naa ko xam lépp ni ko jàppee ñun ñiy bokkam fi nga ko waroon a féete yaa ñu fa féeteel kon loolu ndax 93 la yàq la ñàkk nday ak baay ci diggante ñetti weer. baayam daal mu am ñetti weer yaayam dem te si fu ku muy ñun kon kooki ku ko jàpp ñun nga jàpp kon ci biir jàpp googu nga ko jàpp ñu ngi la ci cant goo xam ne cant goo xam ne ni am na fu mu tàmbali amu fu yem mbooleem lu bokk moom ci aw askan bokk ak moom ci ak bëgg bokk moom ci ab dëkkuwaay ñi ngi lay sant te di la ñaanal ab jaam moom daa mënul dara ñaan rekk la man li ko li nga ko lebal liñ yaakaar ne moo koy ni xaw a niral mooy ñaan yàlla nangu waaye amul lenn loo xam ne nii mën naa tax ñu di la ko jëfal wala ñu la koy jéem a fayal ci ni ko jàppe ndax as gor noo ko jàppe mu xam ko te ñaari wàllam yëpp ay góor góor lañ koo ci topp boo limee ñaari maam mu fekk ma fekk maam maaram fu ñu baax ñëpp bokk la bokk kon kooku yi ku ko jàpp jàpp ko na ko war a jàppee ay bokkam duñ mën lu sant la gërëm la ñu ngi lay ñaanal lépp loo tàmbul yàlla na àgg lépp loo waar woo tobbi ci waar ci ci lislaam yàlla na mat na ko bëgg te nga yàgg ak sëñ Ibra seen dund yàgg lool bët bu seen mu gën a rafet te loolu la ñëpp jàpp ñun ñii ay bokkam lool lañ jàpp yow mii moom nga jàpp yàlla nag daawu si yaakaar jaamam kon ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sunu xol sedd na sunu xel dal na sëriñ Mamadou maa ngi lay sant bu baax di ñaan nga yàgg fi lool te wér barab la boo xam ne gan gu ne wàcc na fi waaye gan yi fi wàcc yëpp seen cëmbëril seen barke yàlla na ko sama sotti ci sa ci yow nga yàgg fi lool te wér li ñuy séentu ci yow li ñuy yaakaar ci yow di ko di ko wut ci yow yàlla nu yàlla dajaleeg moom Cheikh Ibrahima mii nag ñoo ngi koy sant bu baax di ko di la ko dénk niñ la ko daan dénki di la xamal ne li ñu war ci moom léppam ñun la léppam ñun la war nu ñu ko tëlee noonu lañu ko yaakaare ci yow nanga nu ko ci defal yàgg nañ la ko wax waxaat nañ la ko noo ngi lay sant bu baax di la gërëm di ci yàlla yonent bi sëñ Tuubaa jataay bii nga toogee yàlla na nga fi yàgg yàgg ñu yàgg fee ñu yàgg la fee teeru yàgg fee ñëw yàgg fekk yàgg ñu fekk noo ngi lay sant bu baax di la gërëm sëñ Ibrahima nag sant gi nga xam ne moom nun bokk yi am nañ ko ci moom mënuñu ko wax dañ dañ koy dimbale ci cant gi nga xam ne sant la na ko waaye ñun mënuñu koo mënuñu laa jot waaye moom ñu ngi rafetlu bu baax xam nañ ne bis bii nga xam ne mi ngi koy woote te muy bisab cosaan boo xam ne daf koo yokk yaatal ko ndax bis bi dama laa wax ne sëriñ ma sama Amadou Kabir wàcc na fii am fi ay bis kon nag bis la bu yàgg waaye moom bi mu ci jotee nag daf koo def yaat yàkkali ko yaatal ko bu mu yaatu yàlla na ko yàlla yokk moom itam barki sëñ Tuubaa ñoo ngi lay xamal ne bis bi yow Ibrahima lépp lu ci war ci bi ci bi bañ ko tàmbalee ba ni ñu ko jeexale lépp yow la lépp lu ci war yaa ko def kon nag ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di la xamal ne yëg nañ ko te bokk yëpp yëg nañ ko te ñu ngi lay ñaan lépp loo ci def ni ñoo yëg nañ ko ñoo ngi lay ñaanal sunu borom bàyyi la fi suñu kanam rek ndax li li sëñ Omar miy wax di magam mooy moom rek mooy li fi ne jàmm mënul lu ñaan waaye nag sant nañ la cant koo xam ne mënuñu koo tudd suñu làmmiñ waaye dañ koy bàyyi suñu xol suñu borom moo nu koy eggaleel yàlla na yàlla yokk saw fan yokk sa wér yokk sa wërsëg ba li nga yéene ci lislaam bi ak yoonu sëriñ Touba wii nga def ko ni nga ko bëggee dund ba mu soob la barki sëriñ Touba. ñoo ngi lay nuyu ci turu Cheikh Mahamadou Lo mii di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba lépp sunu borom tabaaraka taala tëbb ko kattan gu ànd ak tawféex ba mu def ko ni koy njottam ñu ànd ko ak moom daraje sëriñ bi xaside yi sëriñ Ibrahima Mbaye sëriñ bi ne mi lay bu baax ci bis bu tedd bii nga xamante ni mooy bisub sëriñ Sam Mbaye rahimahullah di wax ni bu ko mënoon da ci ànd ak yow njëlbeen ga ba bis di jeex waaye day mel ni muy ñëw ànd naag magam sëriñ Saruloo ak rakkam di ndey jooram Serigne Cheikhouna ak i taalibeem ak i wóllëreem suñu alaaj njaay duy sangu Serigne Mbàkke Sàmb Abdoulaye Moussine Fall ak ñeneen ñoo xamante ñu ngi topp ci ginnaawam lépp rek ngir war wan la ni la bis bi bisam la da wax tamit bis bi lépp moom la war ci biir ak ci biti waaye lu mu ci jëf lu nekk moo xam kàddoom la moo xam jëfam la yéenam rek lay feeñal ci loolu. ak soxna màgget mbay mi nga xamante ni mooy jëwriñu soxna yi ca barab ba Daaru Saara moom tamit ànd nag moom loolu lépp rek day wane jàpp gim la jàpp ak téye gim la téye ndax ñëw gim ñëw fii ci Touba Mbayeen du lenn lu may dëgëral kóllëre gi nga xamante ni yéen ñaar yéen ko fasantewoon ci ca Ngabou Guéné te liggéey gi muy liggéeyal borom Touba àdduna bépp xam na ni da ko ànd yow ci biir ak ci biti ci alquran ak qasida te day fara di wax ni jàngut xasida yi bëri nañ lool waaye yàlla yow la ma nattoo nga doon sab jàngkat daan sax ba suñu borom dogaloon sa baat naqar yi tiwut yow lay déglu kon day mel ni kon euh, jàpp gim la jàpp jëri jëmmi sëriñ tubaa képp moo tax ak xasida yi mbokk yi nga xam ne Serigne fekk nañ tamit sëñ bi bu baax a baax mbokkam ci ëllu xasida yi Serigne Abdou Ahad Diouf ak Baye Mor Ndiaye mii nii. ak daayira Wakkaan xaq daayira xadeq Fila gi nga xamante ne ñoo doon kuréel mu tuddee Mouhamed Thiam rek Serigne Xaarim ak sëriñ Serigne Fallou Jatra ak mbooleem gaa yi bàyyi fekk yëpp rek ak njabootu Cheikh Amar yi ñëpp rek sëriñ bi ne mi leen nuyu bu baax a baax a baax ndigal li nga xamante ni Serigne bi waxoon nañu ko ak ma sàmba mii nii ndigal li nga xam ne Serigne bi waxoon nañu ngir ñu mën koo jàllale lu lenn lu may kenn ku nekk ci ñun. booy dellu nga am loo yóbbaale ndax histoire saxal na ni Serigne Touba qaad lahu laa maxtaar lahu dawul toog ci benn jotaay nit di fa jóge daw yóbbaale dara te Serigne Touba waxam lépp daw génn ñaar yii nii mooy topp leen yàlla te bu leen ko mooy kon nag sëriñ bi ne mi ngi leen dénk la Serigne Touba baaxoon daan dénk mag ña mooy kenn ku nekk ñun di góor di jigéen mag di ndaw boo jigee fii ne nga xam. sabab bi tax suñu borom wàcc ci kaw suuf gii nii sëriñ bi nee na suñu borom tabaaraka taala daa wax ci téeram bi nii nit ñëpp dama bind ngir ñi ngir ñi nit ñi njëkk ña la moo digg doomu la moo xam nit la kon nee na kenn ku nekk ñun na xam ne sabab bi tax suñu borom bind la mooy nga jaamu ko te bañ koo may te borom tabaaraka na ne bind gi ma bind suuf ak bind gi ma bind asamaan wàcc gi ma wàcce ndox mu gént ay mu génn ay gàncax la ma ci jublu mooy yéen jaami ngeen yëg seen borom ngeen man ma topp ngeen mën maa ragal yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladi min qablikum laalakum tattaquun alladi jaa lakum al arda firaashaw wa samaa binaa wa anzala min asamaai maa fa axraja bi min asamara risqan lakum fala tajaalu lillahi andaada wa antum jaam bu ko dégg bu nekk li la war ci àdduna mooy nga jaamu yàlla dëgg-dëgg jaamu ko mooy nga topp yàlla dëgg-dëgg topp ko sëriñ bi ne topp yàlla na jaam bu ko bëgg xam ku nekk mooy loo jëf lum tuut tuut ak loo wax lum tuut tuut ak loo yéene lum tuut tuut suñ boroom tabaaraka wa taala dana fay aw yiw te ne yiw woowu bépp jaam boo xam suñ sun borom wan na ko fii ci àdduna wan na ko laata muy faatu bu ëllëgee yamu xem bu tàbbee ci bii barsàq dana xeeb lool lam noonu jëf ci àdduna ci jëf yi baax yooyu noonu kon nag sëriñ bi nee na buñ delloo ci barab ya dan gën a góorgóor bu baax a baax te gën a farluwaat bu baax a baax te gën a pësifaat bu baax a baax li tax suñu borom wàcc ci àdduna bii ne mooy ñu jaamu ko képp te ne suñu sëriñ tubaab mi nga xam mooy suñu yaakaar te ak ëllëg lépp lu mu am ci yàlla lépp lu mu am ci yonent bi sallallahu alayhi lépp lu mu am ci cëru gaa yu baax yi lenn rek moo ko may muy ak jaamu yàlla ne gaa yu baax yi ñuy dégg yëpp ba kenn ku nekk di yéem seen i jëf di yéem seeni may seen i yegg fu nekk loolu leneen ko may lu lenn lu may sax ci ak jaamu yàlla nangoo son ci seen boroom guddi ak bëccëg tatajaafaa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun sëy mi neen bépp jaam boo xam suñu borom dara ci kaw suuf ngay jëf loo xam wóote naag ndigalu yàlla yi wóote naag bëggu yàlla ne jàmm boobu na xam ni mu ngi jëf li ñuy wax firi kóllëre ndax kenn ku nekk laata nga wàcc àdduna sunu borom daa waxtaan ak ruu ya ruu ya gëm ak ruu ya weddi mboolem ruu bu wàcc kaw suuf wàcc ci kaw suuf gëm yàlla ruu ko waxoon na yàlla ne ko man moo wàcc ci àdduna dinaa la gëm dinaa la topp duma la may képp ko ñëw ci àdduna nag di mooy yàlla di jëf ab safaan na nga xam ne la nga wëllëranteeg sa borom laata ngay wàcc ci àdduna yow firi nga ko te ne képp koo xamante ni yaa ngi firi la nga kóllërante yàlla kooko day perte àdduna day perte alaaxira alladina yanquduuna ahdallahi min badi misaaqihi wa yaqtauna ma amara allahu bihi ay yuusala wa yufsiluun fi ladi ulaika humul xaasiruun te nit ñi bu pettee ci àdduna barzaqam dana naqari yawmal xiyaam dana naqari te buy dox tamit kër Sufaan képp lay tàbbi kon sëñ ne bu fekkee bëgg nañ suñu àdduna neex suñu barzaq neex suñu yawmal xiyaam neex tàbbi bi aljanna faaw danañ fase àdduna fase saytaane fase bànneex fase mbooreem li gàllankoor doomu aadama jublu yàlla jublu bëggu yàlla nee loolu buñ ko defee daal dana mucc àdduna dana mucc alaaxira suñu àdduna dana neex suñu alaaxira dana neex sëriñ bi nee na tamit kenn ku nekk ñun nan bàyyi ndigal yi nga xamante Serigne Touba indi woon na ko fii laata muy dem te ndigal yooyu lenn lu may feddali njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne boo ma ci biir ay ciiréem la may bëri bëri bëri weesu wut topp leen yàlla te bu leen ko may boo demee ci laysal birru baa lu ko nuru sëriñ waxoon na bayit bu noonu bu mel noonu woon na ni bépp jaam boo xamante ni yaakaar na aljannat nungutu jaamu yàlla kooku ab dof la bu ngëmbintu ci man rajaau jannatin bila taatin fa xumrun xururiyaat yi kon nag sëriñ bi ne képp ku bëgg a tàbbi aljanna képp ku bëgg mucc ëllëg ci sawara képp ku bëgg a mucc ndax nax yi àdduna képp ku bëgg a mucc ëllëg yama xiyaam na xool la sëriñ tubaa nekkoon na xool la borom tubaa bëggoon mu nekk te loolu mooy njibu yàlla gi te loolu mooy ndigalu yàlla yi kon ñoo ngi taxalu foofu di ñaan suñu borom tabaaraka taala mu yàgg ko fi lool te wéral ko. di jiital ci nuyoo bi di yëkkati kàddu ndigal yu bàyyi ko ci kilifa jataay bi di sëriñ Mouhamadou Abdourahman Lo ibnu sëriñ Dame Amsatou Lo ibnu Cheikh Ibrahima Lo Ngaabu kàddu yoo xam ne dama koy sof ci kàddu yi fi mbokk yi fi jaar yëkkati mu jëm ci digganteem ak Cheikh Ibrahima mbay mi nga xam ne moom la fekk si fii tey mi ngi siyaare bu baax sëñ fàllu mbay mi nga xam ne mooy kilifa ak barab bi di kilifa ak sëñ Ibrahima sëñ Fallou sëñ baa ngi lay yeesal kóllëreem sa digg ak moom akuk cofeelam akuk mbëggeelam di wax ne jàpp gi mu jàpp sëñ Ibrahima jàpp googu dugalaale na la ca biir dugalaale na ci mbooleem askan bu bokk sëñ Touba mbay sëñ Ibrahima sëñ bi nee na sa digg ak moom kenn da ko cee doytu seede ku may yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba mi tax ngeen ànd mi ngi mi ngi mi ngi seedeel yàlla ni sa diggante ak moom téye na ko téye goo xam ne bu demoon ba yëg na doxatoo ko itam dana ko jàpp ngir sëñ Touba mu ko seedeel daa wax ne sax loolu waxin la rek waaye xam na bu baax jàpp gi nga jàpp sa diggante ak moom bokk nga ci nit ñi nga xam ne xasida yi lay tiitaroo ci yow waaye bokk nga ci nit ñi nga xam ne ñoom la gën a jaxasool ndax yàlla da koo nattoo gaawut nit ndax la sëriñ bay Jaxate waxoon moo tax ku euh, dugg ak génn dafa gënut te ku ku mënta dugg di génn warta gaaw a dugg ku dugg mën na koo xool waaye yow bokk nga ci nit ñi nga xam ne jaxasoo na ak yéen jaxasoo goo xam ne mboolem njabootu barab ba ñëpp xam nañ ko am na ñoo xam ne waxtu wu nekk ñu nga ñëw ca barab ba te yàlla dogal na jaxasoom ak sëriñ bi amagul waaye nag yow képp ku aju ca barab ba xam ne sa digganteeg sëriñ bi waaw na ñëpp xam ne xaritam la wala réem la soppeem la day mel ne ñett yooyu nag benn bu mu ci doonoon rek doy na sëkk ñett yooyu sëriñ bi boole ci ku xam xarit lu mu doon ci ku xam wëllëre lu mu doon wa awfu bil xaq di innal xaq di kaana masula te moom mii de wëllëreem bokkut ak wëllëreew gaa yi nga xam ne koo romb fasanteeg téeméeri nit wëllëre ci benn bis moom nit dana ñëw ci moom bëgg a fasanteeg moom kóllëreem mu xaar ko ab diir ne ko dégg naa ko kon kum dem ba jàpp xaritam soppeem wëllëreem kooko ku rëy ci moom la kon sëñ Ibrahima man de xawma xawma xawma ku la ëppal ab cër ci sëriñ bi xanaa koo fa tollul ab cër waaye ku la fa ëpp cër xawma ko ndax sa diggante ak moom ak li mu téye ci yow loolu bu ma la ko waxee xam nga xam naa loolu sëñ Saalihu ña ngi wax lu wér la koo fa àndal rek mu mu jaar ci yow xamanteeg sëñ bi dana mujj ka sëñ bi xamaloon boppam kooku mën naa am wàccuwaay woo xam ne kooku amu amu ko ci sëñ bi kon nag loolu ab cër la boo xam ne yàlla moo la ko fa defal kon day mel ne cofeel goo am rek ci moom ga mu am ci yow moo ko raw fuuf ndax mi ngi yegg ak yow foo xam ne nit jàppante naa nit sax te du yegg ak moom foofa lii sëñ Saalihu wax lu wér la yàlla dogal na amul jot moom sëñ bi yàlla dogal na itam lu mu bàyyi rek lu mu def rek bàyyi na lu rëy rëy soo ko def lii yàlla dogal na boo doon fekkee wàccaayam jugam da nga xam ne kii di jug mi ngi jug waaye tàmmul jug nit ki bu tàmmee jug buy jug du jafe waaye bu tàmmul jug buy jug faaw mu jafe moom nag yàlla da koo bindee noonu waaye day wax ne bu fekkee am nay mbokk yéen jànkatu xasida yi ak jànkatu alxuraan yi yéenay mbokkam kon sëñ Ibrahima na nga xam ne aw daggin nga ci jëmmi sëriñ bi na nga xam ne itam foo toll sëñ baa ngi tiitaloo tiitaroo sa jëmm ci biir ak ci biti mi ngi koy téye itam te di ko seede sëriñ Touba suñ digganteeg yow nag duñ ci wax ndax sunu sunu mbir suñ digganteeg yow dañ koy dugal ci bëgg sëriñ bi ndax bëggug sëriñ bi moo tax sunu jaxasoo am kon bu ñu tuddee su sa digg ak sëriñ bi rek dugalaale nan suñu digganteeg yow dugalaale nan mboolem njabootu barab ba ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bari na te it boo yebaloon keneen dong ku man di doon dana ko jàppe si jëmm te xam na ne dina doy sëkk ci moom li nga def nag lu rafet la sagal nga ko bu baax a baax a baax fekk nga ko ci bokkam sagal nga ko fi. mbokk yi maa ci ànd gi bi. sëriñ bi nee na mbokk yëpp mi ngi leen di sant ànd gi ngeen ànd ak Cheikh Ibrahima ci bis bi ndax lépp lu ngeen ci def moom mii moom moo ko war loota moo ko war te jëf na ci lépp lim man sëñ Ibrahima mii moo ko waxal boppam. waaw euh, sëñ bi sëñ Ibrahima da laa sant bu baax a baax. wallaahi la sim fan yi at mii ñu toll wala ñett ñetti at yi ñu génn ku ci nekk daana nga toog nga sab roq di méccitoo wala ngay jàmbat waaye moom tax nga jàmbatu dara sonnatul sax daa coono ba daa wàññeeku cant gi gën a bari loolu nag wax dëgg yàlla sant na la ci <laughs> man mi sax santaane naa la ci ndax Ibra bu santee moom da may santaane <laughs> <laughs> hmm. Kolda euh, Thiès sëriñ bi nee na moom yàlla da koo nattoo xam nga ni mënta wax moom jàng xasida rek la man te it bu mënoon a waxi tamit ay kilifaam bu waxee ba noppi du waxaat waaye sant na la bu baax a baax a baax sant na la ba fa kanamu yàlla ak yonente bi ak sëriñ Touba yow ku la am sant la nag. sëñ Galas Jatara. doon kenn koo xamante ni day xaritu sëñ Ibrahima moom daa bëgg sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima bëgg ko muy boroom xam-xam boo xam ne tamit sëñ bi nee na wëllëreem nga ak man tax naa nee na wëllëreem nga sëñ Ibrahima te suba mooy def waxtaan wi incha rab rabbi waaw moo koy def incha allah sëñ bi benn jàmbat daal la taalibe am ak waa àdduna bépp. fan yi dégg nga télé yeeg rajo yeeg yëpp ñu yóbbu woon fi ab loi boo xam ne yóbbu woon ca assemblée ne danoo bañ nguur jigéen am ci àdduna bi ci Sénégal ñu dem ñu resetiwaat ko loolu daal bëgg na sëñ bi naqaru ñëpp la waaw. daa warta doon yóbbu. sëñ bi nee na warta doon loi ñu koy yóbbu. waaw warta ah, doon ab loi ba ñu koy yóbbu foofa kon nag lu warta am la rek. sëñ bi loolu ñëpp nga koy jooylu hmm. ñi doon jàng kuréel sëñ Ibrahima nee na sant na ñëpp waaw nee na mi ngi sant waa daayira bi bu baax a baax a baax sëñ bi kon ñu bàyyi la nga ñaan rek <laughs> voilà balaa boobu na ñëpp wax Cheikh Mouhamadou Lo Ngabou yàlla na fi yàgg te yaa maalikal mulki yaa man jalla xan qawadin irham jami'al wara ya haadin rada محوت ما قد نهاه القلب من درر بجاه أفضل من لله قد لجا أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا السمن أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا السمن أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا السمن نفحتنا بأفضل الإيمان فلتنفح الجميع بالأمان خفزتنا به وبالإسلام فلتفصل كل عن الملام التويل لنا أمرنا صحيح لنا بدنا وهب لنا رشد والتوفيق يا الله واجعل مدادي فوق كل ما بركة كما تري السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا quddusi am kima asmi suturi asli xumuri kassir xuyuri bila kiday salli wa sallim ala al muxtaari fi lkurama wa bashirana bi nasmi abdala rusuli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun